gars yi xaatimu Mbappé ñaata at la fa war a def nun ko war a lijjantee yaayi Mbappé lépp ci information yi ci suba teel gi information yi wér te wër gëstu gi Aladji Malick ci kàddu gi yéen ñu ni seetaan ma bégga leen kontaan ci yéen ñaanal leen jàmm ak salaam yal yàlla suturaal leen képp koo xam ne yaa ngi dugg ci bile seen di ma seetaan loo bëgg ci àdduna yaa ko xam yal na yàlla defal la ko ndax mooy tax nga am ca warteg ñëw di seetaan jàmm yàlla na sonal Sénégal defal président Ousmane Sonko ak ñëpp ñi ne ci réew mi jàmm ak salaam ndax politique waaye nag réew mi am na droit képp ku fi dëkk bokk ci nga ñaan ci jàmm kii nag mooy yaayi Mbappé Mbappé nag contrat bi ni ma leen ko bëgg a waxee benn par benn ginnaaw bu ngeen abonné ba pare maximum de partage aimé suñu moom mii di yaayam wax dëgg yàlla nekk na koo xam ne pilier la ci diggante Mbappé ak moom ak dem ak Madrid waaye nag 500 millions d'euros yi bu ngeen ko gisee. xaalis la boo xam ne danga naan Real Madrid gars yi fu mu koy jëlee. waaye képp ko xam Real Madrid xam ko financièrement xam ne da cee taxaw ndax népp lu muy organiser ci wàllu njënd koom jaay a akum fay da koy teg ci yoon moo tax jafe-jafe xaalis mën na ko bañ a gaaw am benn yoon juróomi téeméeri millions d'euros ñu xalaat ci juróomi at yi nga xam ne ma yëgal leen ko Mbappé moom lay xaatim fële ci Real Madrid maanaam day signé ba doyal juróomi at nag bari na séngam waaye nag gone gi fi mu toll ni Real da ko bëgg a téye ni ko ciix nag bu ko defee mu bañ a doon jinaxi bojo buruj buruj fu ne mu daal di fay laalub tànkam dañu bëgg a ko fii téye ko ci football meilleur téye ko ci club bi nga xam ne mooy Real Madrid bu ko defee contrat boobee nekk bu yaatu contrat boobee nag xam leen nañ ni kii di Mbappé biir werseeri Paris Saint-Germain yaakaar naa kenn ko ci ne jël na la haute antenne wax la bëgg-bëggam wax la ni la day coppati xam tey day dund mbëggeelu xale ndax gars yi nee nan mbëggeel xale cappali boobam fële ca merengey la ne loole nag gars yi kenn du ko ko tere moo tax ngeen ñaanal ko ci jàmm ñaanal ko fi tawféex yeneen information revue de presse bi ñi ngi koy togg ci kanam tuuti Aladji Malick ci kaddu gi di leen wax ne suñ compte TikTok bu njëkk ba ubbi na mi ngi dox mi ngi màjji màjji compte TikTok mooy dox mooy bu njëkk ba nga xam ne daanaka moom lañ commencé woon ñu pertoon ko loolee dikkaat na ak beneen bi nga xam ne moo toll ci daanaka presque de cinq millions de j'aime boobee mi ngi toll woon ci un million deux cent léegi ñu gërëm leen sant leen